bile yoon du yomb si moom Abdou Karim Gueye ñu gën ko xam ci turu Karim Xurum Xaq placé nañ ko su mandaa de dépôt bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni Libération Online joxe nañ ko loole nag mu ngi xew bu ci altine ji bi nga xamante ni doon na jàkkaarloo ak procureur bi ginnaaw bi ko yoon tegee loxo samedi nu génn activiste bi nag dinañ ko atte suba ci àllarba gi yamoog le 13 mai 2020 mu wute lool nag ak li mu waxoon ni moom lañ koy toppee di offense au chef de l'État njiital mouvement nitu dëgg kii nag tuuma yiñ teg ci kawam moo di attroupement armé maanaam yëkkati fitna ak outrage à un agent maanaam dal ci kaw ab agent si fàttali nag Abdou Karim Gueye waa section de recherche ñi ngi ko teg loxo ni ki samedi gi génn ginnaaw bi nga xamante ni yëkkati na ab vidéo doon ci yàq lu mel ni xamee ñi nga xamante ni moo di état bu Sénégal waaye tamit doon ci woo askanu Léona Niassène ñu daal di wàcc si mbedd yi coow loole nag mu ngi tukkee niki ajuma ji nu génn ginnaaw julli ajuma bi nga xamante ni waa lew Léona Niassène julli woon nañ ko ci ginnaaw bi sax ca la police daal di convoqué imam ba nga xamante ni mooy jiite foofee ca bërëb ba waaye nag li gënoon a yëkkati coow li moo di ki nga xamante ni moo di xaalif bu Léona Niassène dafa àndoon ca convocation ba maanaam dafa demoon wuy ji lile nag moo waraloon ba Karim Gueye di activiste daal ji génnoon mer lool jaarale ko ci ab vidéo wax la ko neex demoon na sax bay wax ni mu doon murid yi ñoom lañ ko def tey jii du demee nii mbir mi nag yoon jàppe ko ak yee fitna ba tax ñu daal di yabal waa section de recherche ñu daal koy jëli foofee ca këram. tëbaluñ benn fan man dama respecté man dama naw murid yi quoi murid yi neexul ba neexul na mais tarixa nekk senegal yëpp murid ñoo ci ëpp fulla ñoo ci ëpp fulla parce que mbooloo bi ànd ak xalif la woon ñeseen bu ñu demoon dajji commissariat bi génnee commissaire bi simi tubayam dóor ko bu baax wan leen constitution seen yooyu nga xam ni teguñu ko fenn seen yooyu seen police yooyu ñuy wax noonu police beeg gendarmerie beeg institution beeg ay suuf si suufu drapeau beeg ay ordre ay kenn xam yooyu affaire franc la dara du ci dëgg léegi loolu soo leen sàgganee ba loolu ëpp doole nag suñu diine l'islam